suñu waxtaan par rapport ak li nga xamné nekk modi di mbiru Barthélémy Diaz ñu koy daal di ni ci euh, kanam yoon ak walu ko yoonal fum mu toll nii nag li nga xamné nekk modi le conseil constitutionnel haïti saisi euh, par l'un des candidats jëmale sélection yu euh, législative daldi contester exactement la candidature bu Barthélémy Diaz ginaaw mirum ak ki nga xamné nekk modi di Ndiaga exactement alors Abdou ba jang ci daldi def lu ñu mel peut-être sûrement bettu la yaa ko doon xaare ni ki nga xamné nekk modi di Barthélémy daal koy clamer devant les sages du conseil constitutionnel exactement. waaw parce que loolu xalaatoon naa ne waa Pastef dañ koy def bi ko waa ji defee nag ma ne ah xëy na ñoom la ko defal. ndaxte ah waaw man xalaatoon loolu du tey Pastef bu ñu sañoon Macky Sall du dem Barthélémy Dias du dem moo tax xam nga conseil constitutionnel ba mu leen joxe avem dañ kaa nëbb bu defaru ba jekk. Hmm. ne gars yi am ngeen 10 jours. ci biir 10 jours yooyu gars yi lijjanti nañ ko ba teg affaire yi ci axe. loolu jaaxal leen nag ki biir di jours yi gars yi lijjanti nañ seen i problème ba réglé lépp teg pas de pëccëxoo pas de mbiicoog mbaalaw te ñoom bu doon bi ñu nekk ci opposition bi lañ ko defoon kon kenn du dégg bu doon Macky Sall la ko defoon kenn du dégg tey ñu def ko gars yi assumé ko ànd ci ak ñoom fas yéene lañ cee duma ñoom nag seen problème mooy ndax ñii war nañ ñoo duma wala waruñ ñoo duma ñoom élection ci ay mig mag lañ ko bëgg a gagné te loolu du jàll de. ñoom lu leen dal élection yi buñ ñu ko perte ñoo ko perte seen bopp parce que ñoo sàmmul seen kàddu di recours ay Barthélémy Dias nag loolu yëfu ndaare la parce que kii déposé recours bi amul ñaari nit kii Barth bokk Barth bañ a bokk amul ko euh, euh, xam euh, na xam nga ko nit ñi découvrir ko exactement ah maa recours woon Barthélémy Dias maa recours la ko nit ñi découvrir parce que moo tax ñu bëri découvrir ko ñaari nit nag du ko am nañ xam ne ku ñu yónni la na may nit ñi jàmm. mais pourquoi nga bëgg ko jéem waa Pastef da jamono jooju. non parce que waa Pastef ñoo taxaw ñoom Ayib Daffé et compagnie que nii. wax feeñ ñoom au contraire ñoom la ñuy déposer recours contre ñoom. ma ne euh, daal di déposer recours contre qui que ce soit. Fallou ko wax feeñ. ñoom wax nañ. feeñ lu ñu wax bañ feeñal seen bopp. xam nga boo ñëwee nga ne man ma. xam nga yaa wax na nga recours ma. Hmm. lu fi indi baat boobu. ga ña ña ca des dem ca télé yi naan recours ñu. ñu koy gisub recours lu ko lu fi indi baat boobu caaxaan baaxul affaire bi du recours de recours Sonko na lijjanti bosam comme moom dóor nañ ko recours mu ne <laughs> xaaral ma yónnee ñu dóor recours baat noonu la ko bëgg a defee <laughs> affaire yi jantal meen amu ci nag parce que waa gëm sa bopp lii ñu wax nii neexut a weddi gëm naa ko de. mais man à quatre-vingt-dix pour cent damaa gëm ne Sonko Sonko moo yónni kii def recours bi. gëm naa ko loolu sama gëm-gëm la xanaa kenn duma ko bañal jeex na loolu te question boobu ma du ci sori comme affaire yoon la. man à chaque fois du ma bëgg. xam nga xaaral wax la xaaral mais quand même fi nga laal. waaw xaaral ma nekk lu am solo exactement. xaaral ma wax li nga ne waa Pastef la. Euh, benn yaa ngi discrédité li nga xam ne que moo di candidat bi déposé li nga xam ne candidat bi amul ñaari nit kii kenn xamu ko tojul fenn siiwul. Euh, benn bi aussi. ku ñu batale la rek mu ñëw di saboter ak jéem a xajamal. moo tax man la juge boobu. mais est-ce que da nga si am lu leer que ni. xam nga juge mu ñëw di xam nga juge boobu bëgguma cee sori xam nga tax bëgguma cee sori parce que dafa ne ci yoon yoon di ko lijjanti te bëggumaa jiitu man bëggumaa mel comme Ousmane Sonko di jiitu dossier yi di jiitu di wax bëgguma mel noonu. Hmm. je euh, préfère que ma ma bàyyi yoon def ci liggéeyam samay interprétation nag. weesuwul Sonko ma xam naa ne loi amnistie bi ci la bëgg a langaamu. Hmm. Barthélémy Dias code de la presse bi ci la ñuy wax ñoom ci la ñu layal seen bopp. code ko euh, nag euh, code kii nu mu Euh, code électoral bi ku ci nek amna fo foo am ngay avocat nañu bayyi yon doxal mais récemment da nga xone que ni ba nga ko doon modifier les affaires non biñ koy modifier fekk na affaire ba Barthélémy jass engagé ko te dañ ne loi bu diisee du rétroactif bu dé loi bu oyaf donc pourquoi wa sam kaddu di tiit su fekkee ni amna non amul kenn ku ci tiit ah parce que dem gis ne ñoom buggaan ngi dani ñom ñep genn di wax parce que dañu yoni ben organe de presse bu ñu wax wal Walfadjri mu doon sonde ñeen dafa joom da doon sondé joomul moko tay xam na ni mënoo def dépôt recours démb mu génn tey moo la ko gën a xam yow xam nga ni recours bu ñu ko déposé dinañ ko notifier sax candidat bi moom mu dem defaru déposé ay layam loolu yëpp amagul yow nga génn fee nekk média mag naan dama juumul moo ko tey da doon sonde xool nu gaa yi def dañ bàyyi dof dof lu nag mais le cas de baat ak lépp lu mën a doon waxna ko sank da ngay baye dossier bi li nga xam ne moo di mais quand même ak lépp lu mën a génn justement ak lepp lu mën a génn est-ce que euh sàmm kàddu ñoom Bougane Gueye Dany defuñu exactement le mauvais choix parce que c'est un choix risqué euh en mettant tête de liste ki nga xam ko que moo di Barthélémy Diaz suñu moytuwul euh, syndrome bi nga xam ne itam doon na yeewi en 2000 en 2002 mille deux législative yi peut-être dina len dali exactement est-ce que nekul un choix risqué sab jàngat Abdou non non du choix risqué parce que ñom ñiko def xamna fuñ ko teg te invalider bat est-ce que ça veut pas dire que liste bi dañ koy. invalider liste bi dañ koy invalider. ku la ko wax ñu pay top ku la ko wax yene si ay juriste. ñen ci yu projet bi amna ñeneen ñu wax luddul lolu kon nañ diglu yoon rek yeen da ngeen am seen juriste bop bopp ñoo leen di defar article di leen ko wax ni ngeen ko bëgg ñeneen ñi am seen juriste nañu bayyi conseil constitutionnel bi fi nekkal askan waxal ñom am seen ay juriste yeen ñepp la ku nekk nako interpréter ni mu ko bëggee mais conseil constitutionnel num ko interpréter non la la ngay xaar ci conseil constitutionnel avant. peut-être la moy mu àtte deug rek deug do nga la xaar mu àtte ñaari recours yépp mu àtte ci deug ku ci wërta dem mu ne la demo ku ci wara dem mu ne la dem da ngay dem. Ousmane Sonko jël na avocats pour layal bopam Barth jël na pour ku ne layal sa bop askan bi nañ ci mandu rek télé yi dem di manipuler yoni say chroniqueur ak yoni say non c'est pas ça. mais parti bi taxaw assemblée nationale disqualifier bopam Abdou. te ngeen bëgg layal ni en fait. Barth attewul di. moom moo ne carrément mënumaa nekk candidat. Sonko toogoon na fii ne Macky Sall mën na nekk candidat 2024 après mu génnaat ci weddi ko. kon di see génnaat ci propos yooyu mu tënee. non Barth moo àttewul boppam. àttewul boppam loolu mooy problème bi nag dañ koy àtte. alors mi ngi exactement mbiru ki nga xam nekk moo di euh, Barthélémy Diaz ak rebondissement yi nga xam ni itam am na si sens en tout cas ni daal di xaare ni décision bi nga xam ni itam dina daal jógee exactement sur le conseil euh, constitutionnel moom itam fas yéene daal di war a euh, par rapport ak boobu di nga xam nekk moo di meex rek ba daal déposé recours contre moom donc nag information n'a nga xam ni itam dé mi ngi daw en tout cas Walfadjri mi ngi tient à que ni mi ngi daal aussi baalu l'ensemble de son public par rapport ak xibaar yi nga xam ni itam yékki na par rapport ak mbiru ki n'a xam nekk mu di donc jusque jusque là le conseil constitutionnel prononcé ou allant dans sens peut être une ne une semaine en attendant Barthélémy daal di à euh, li nga xam nekk pôle de défense Donc peut être que vous a défendre si wàllu wu mel exactement alors euh, ginnaaw loolu itam dañuy daal di yegg si itam si keneen di ki nga xam nekk Ousmane Sonko exactement élage du côté de la régie euh, Ousmane Sonko aussi gis nañ ñoom maître Bam Cissé et compagnie.

demandé wuñ soxla wuñ ah tay ño soxla jërëjëfe yalla suñu borom do noo koy analyser parce que ñom néne ils ne sont pas des demandeurs c'est une loi de Macky Sall hmm. Macky fait une propre loi am monsieur demandé wo soxla wo ciéb bi cotiser wo dépense sa yónnee wu ci buggo waye bañ yaké am nga ñak jomu tok di lek dañuy tok di la sétane rek kenn du la wax jugal dé waye nak buñ ci bénéficier wo mom war nañ képp koo xam ne ñàkkoon nga sa bakkan ci affaire yi problème yi am ndax ñooñu ñàkk seen bakkan ci lan la ñuy bénéficier wu ñoom après loolu laa la laaj ñee ca bàmmeel yi tëdd ñoom ci ban bénéfice la ñuy am après hmm. ku dee yaa perte. moo tax lii la donc loi bi ñoom ñoo ko doon bañ. que ni ils ne sont pas des demandeurs. tey ñu ëppatiku bëgg see bénéfice ci ci bénéfice kon kay ñoo ko demandé. Sénégal yàlla na ñu yàlla yërëm. ñu dugg nañ ci giraawaane rek euh, euh, comment comprendre que Macky Sall mu nga xam ni itam moo fi indi loi d'amnistie ëlbatiku pare di déposer recours contre ki nga xam ne que. mooy waa léegi moom Macky Sall li li gis nga amul incohérence président Macky Sall moom moo bind loi amnistie bi xam na lim ca bind. xam na mu ci dugal Mame Mbaye Niang ca la bokk bokku ca Macky Sall xam na ko nest pas te moo recours. looloo tiital gars yi nag. Ah, ok parce que les tenants et les aboutissants ma kee ko xam la nekk si biir ñan ak ñan la concerné. absolument yaa ko wax de man waxuma ko. parce que gis nañ kaaw Didier Badji ak Fulbert Sambou ba Ismaël Madior Fall ne si la bokk. après ñu ne bokku ci. ñu ne bokk si. léegi xanaa ko Macky mi ko bind lu xam na lu mu ci dugal xam na lu mu ci dugalul bu fekkee nag moom ak kuréelam ñoo <laughs> ñoo recours Sonko ngi ci danger de <laughs> loolu moom beneen problème la. liy tiital gars yi. parce que Macky mi recours man na jëlé avocat ñu défendre lam bind mom parce que li nga bind yow man nga ko défendre n'est-ce pas am dit fallu yow li nga bind kay man nga ko défendre. hmm donc de lo Macky batay mi way di euh, euh, té dëkk bi. ah Macky mo bind de loi amnistie gannaaw bam ci waxtane ak ñom jomaay ak Sonko. mais erreur la su Diomaye ak Sonko. Ah, xamul li tenants ak. les aboutissants sa attention Sonko waxon na len bopam li nekk ci biir loi bi. Sonko waxoon na leen boppam nee na leen am na ji ponk yu juboo am yu juboowul waxula ko lañ juboowul est bii bokku ci fas dul dem na xel a fay doxantu dafa am benn benn xista kii bi ma lay net benn histoire boo xam si sëñ Babacar si la woon. Hmm. sëñ Babacar mu ngi ci doon jàngale ni nit. Hmm. day wax du wax lu ko wóorul. daam ku ñëwoon ci moom ne ko tux tux tux sëñ Babacar tux araamul ndax jàng naa bàqara ba naasi amul fenn fu ma gis yàlla ne tux daa araam mm. sëñ sëñ si ne ko ndax mën nga maa firil baqara ba naasi mm. mu ne ko waaw muy firi ba ci alif laam miim daan ne ah yàllaa xam lam ca namm sëñ baabakar ne ko déet firi ko mu ne yàllaa xam lam ca namm mu ne ko waaw yàllaa xam lam ca namm lan moo la wóor ndax lii yàlla dugalu ko fa am déet waa ne tek di xol xam nga lo gisul mom da nga nan gisuma rek waye amul mom doko wax comme yow bindo mbir mi lo woko amana sax boko amana sax boo ko sori li wér te dal man lima ci taxaw moy bu ci fekke lo am ne bi ci la bok mm. bu ci Sonko wo warna askan wep te ñay xaar mu dindi lo am ne kon xam nañ door nañ seen loxo ci ëkk na leer. parce que su ko dindee Ousmane Sonko dootu. éligible mais non comme du dem 2029. bu ko dindee ban la ko dindee dem 2029 du dem fe fu mu jëmati xam nga ne kuy xalaat loolu du ko dindi moo tax yéen ñi yéen yéen a yéen a jël seen xel yi fowee ko Ousmane Sonko ñëw coloniser ko mais pas ñun ñii ndax man damay xalaat nag damaa yor xel di xalaat du ma muumin Macky mi ko bind ñoom Jomaay Ousmane nee am na ñetti poñ yuñ d'accord. Hmm. dootu Ousmane sax moom amutoon lu muy nangoog lu muy bañ moom dañ ko yóbbaale rek. ñom Macky ñom jo jomaaye leen intéressé won du Sonko mom ab yóbbaale rek la ca mo génn na non amna na yuñ juboo am na yuñ juboowul waaw nangam nangam léegi yéen juboowul nak est-ce que li bokku ci kon mbir mi tey leen ci rek légui euh, Fallou nañ déglu conseil constitutionnel rek. mais ni déglu conseil constitutionnel exactement. mais balaa conseil constitutionnel Abdou. vu que ni yeen né ngeen ba tey askan ñi ngi woy di jox sympathie ki nga xamné ko modi Macky Sall donc Macky pourquoi cherche à écarté ki n'a xam nekk Ousmane Sonko peut-être combat balaa moo que ce soit Sonko que ce soit Simaki ñoom ñëpp demoonoo euh, si li nga xam nekk mu élection pourquoi vous cherchez justement à éliminer euh, cette liste nationale bu ki nga xam nekk mu di Pastef liste bi dafa 10 liste bi dafa diis wala kon c'est menaçante comme ñoom liñ def Barth rek yoona leen may ko na décours yow yónnee nga nit mu recours Barth tey yow kii moom de la recours wan la man maa recours dafa assumé jantel mel nii lay def Pastef nag mosu ñoo assumé de lu ñu def am kuñ ko daqal <laughs> seetlu woo leen lu ñu def am réew mi ñu suuxal nii sax réew mi ñu delloo ginnaaw nii sax tuubaal lañ ko Macky Sall lépp Macky Sall lépp Macky Sall lépp Macky Sall heureusement gi Mari Sagna duma yooyu ñu ko duma togo fekk fi Macky Sall kon danaan da moo ko dumalu fàllu réew mi réew mi réew mi réew mi ci yàqu la jëm je te le jure ci yàqu la jëm ndegam àggu ci sax ba pare parce que réew mi jël nañ fen teg ko ci kaw dëgg. mais instant bi Sonko li mu def nii yëpp dafa bëgg a sauver le Sénégal. Euh, Sonko moo suuxal Sénégal. révélation yi muy def. non Sonko laa ci boppam moo ñu tardeel. Covid 19 ak Ousmane Sonko moo tardeel réew mi nii mu waroon a doxee doxin waaw bi réew mi amoon Sonko la ak Covid 19. la la manifestation yi nga bëgg wax ak yàq bi. non dem gam dem ca salon bari moo indi lépp loolu mu xoolal. Il yi donc avant salon bi était stable. non parce que le Covid ñew na sonaloon ñu Nous ñu courti le Covid ba Son ko ñew indil ñu musiba mi ken xamul fu mu ko milliards ah, ala lu Nous ray lu ay bakkanu jambour ci ay ay waxi Nous non si euh, non non non non Nous non ci Non, non non non ci dossier non non yow da nga nit ki non da nga non non non non non